waaw lël bi ñu def tey fii ci mairie Touba bi muy euh, euh, ajuma ñaar fukki fan juróom ci weeru decembre dafa nu fee danu fee danu dajale ndax nu waxtaan waajal euh, benn liggéey bu nu war a def ci daara yi ci Touba ministère de la santé bànqaasam bi ñuy tuddee PNLP maanaam bi nga xam ne mooy xeex sibbiru dafa ñëw ak ndimbal lu mu jox région médicale ci euh, jaarale ko ci docteur Mamadou Dieng mi jiite région bi euh, mais mu jëp mu wàcc si ba district Touba comme fi la fi la fi la jëm si Euh, docteur Ndeye Maguette euh, donc mi MCD bi euh, récupéré ko avec l'équipe cadre notamment le capitaine Keita mi nga xam ne moo jiite cellule du jeune Touba alors pompe yooyu ñu nar a jëmee ci daara yi Touba dañ fee lim am na fi limu daara junni ak ñeenti téeméeri daara moom la ñu jàppoon waaye démb bi ñuy waxtaan ak sëriñi daara yi ñu teewaloon mel na ne yokk na ci diggante bi am na daara yoo xam ne ci nawet bi doxatuñu woon ndax dañoo bayi woon ñooñu dellu si nañu man ma noonu jàpp ne lu bon bon junniy daara ak juróom-benni téeméer am nañ ko yoo xam ne danañ ko pomp li nu ci jubloon mooy xeex sibbiru rek xeex sibbiru bi ndax gis nañ ni sibbiru li muy lor ak li muy faagaagal ci xale yi bari na lool léeg-léeg nga ñëw ci daara fekk lu mat fukki donga tëddandoo ah, ah, ah, loola day gàllankoor seenu njàng loola day eh, eh, gàllankoor aussi mbirum koom-koom ca daara ja tamit day indi tamit eh, coono. ci barabu fajukaay yi ndax xam ngeen ni daa donga yi duñu faj duñu fay bu ñuy faju euh, gis ngeen ni infirmier chef de poste yi poste santé bu nekk fa mu nekk daara jo jaar daara ya fa nekk ku ci sibiru dañu lay indi ñu faj la euh, loolu donc li nu bëgg mooy xeex ak yoo bi ci pompe biir daara yi waaye pompe yooyu moo tax a jóg waaye danañ pompaale bépp xeetu gunóor bu fa nekk lu mel ne matt yi ndax daara xam nga léeg-léeg mu am yooyu euh, matt yi ak fel yi euh, ak teeñ yi ak euh, ak mbóot yi maanaam daal mënunoo wax ni ni ñu ko doon dàkkentale muy aspersion intra domiciliaire ci ci tubaab te mu tekki woon ni bu nu ñëwee produit bi mur yi lañ koy def yoo bi a tax nu jóg gi yoon bu dee daara ji danañ ñëw ndaxam ngir yooyi ndax euh, ku wol mburu tudd dëkk waaye tamit danañu traité waale lal yi danañu traité waale euh, euh, la tërlu yëpp daal ba nga xam ne fu màtt am wala fu fel am danañ ko mën a faagaagaal mën na wàññiku ndax opération bi kët benn la rek ci doxalin yi nga xam ni jëfandikuwaay yi nga xam ni dañ koy jëfandiku pour xeex si mburu ndax bu doon dooni pompe bi dong doy na bon du ñu nii na ngeen takk sànke yi ñu nàndal ak euh, posonu gunóor euh, loolu mooy donc dananu pompe ndaxam ba xeex ak yoo bi waaye bu mu teree nit ñi ci daara yi nañu takk sànke yi tey fanaan ci biir diirum at waa waa daara gépp di ci fanaan euh, bu doon ni ci population général bi laay wax dama naan toute la famille toute l'année et toutes les nuits maanaam waa kër gépp at mépp ci guddi yëpp waaye comme daara la ni wax tamit dama naan dongo yëpp at mépp ak guddi yëpp maanaam nañu tëdd ci sànke yi euh, bu ko defee bu nu bu nu pompee dananu wàññi dananu rey yooyu ci biir gannaaw gi yoo bu juddoo feneen naaw dikkit bu ñëwee bu duggee ci biir daara ju nu pomp dana fa fekk euh, euh, maanaam tooke boo xam ni bu dalee ci mur bi wala mu dal ci sàkket bi bu ca taxawee ndax yoo moom lum naaw naaw dal Euh, fa muy dal nag dañ fay teg loo xam ni bu ñëwee bu ko fa fekkee dana ko dana ko lor mën naa dem diggante bu nu pompee euh, daara yi ba nga xam ni si euh, ci pompe bu bu normal pompe pompe yu jaar yoon danga nga xam bi lañ ko teg ndax daara yëpp duñu ay mur ba ñetti weer daal mën nañoo wax ni yow bu dugg si bu ñëwee dana fa fekk lu ko rey incha allah